la yàlla defar yëpp yàlla bu yàlla yàq dara la yàlla defar yëpp yàlla bu yàlla yàq dara la yàlla defar yëpp yàlla bu yàlla yàq dara tabarakallahu